awaaw Doudou Yaay mbokk yi Fallou Ndiaye ak waa Ndiaye production ñoo woote bésu le 27 février arène nationale Fallou boole ay xale yu ës mën a bëre teg ci mën a xeex lool looloo tax ñu dem jële ji Jokkel daal di koy boole ak Ada l'expérience de Jokkel fera face à la jeunesse de adafas Fass bulldozer caatu yaraax combat espoir waaye lamb ji nga xamante ne ni jaay na boppam bu yàgg diggante Laurent Ndiago ak Bou Siteu combat sénégalais ci bés boobu Tony Junior dina fa jàkkaarloo ak Jackson numéro 2 Baba Jaxal dina fa jàkkaarloo ak Kelemaso Soq numéro 2 ak Bekaay ci bés boobu la ñuy bëre Sekk Ndaanaan armée 2 dinañu fa jàkkaarloo Papa Siteu ak Franc Mbeur dinañu fa jàkkaarloo Karbala armée Jéey foofu la ñuy bëree waaye Caatu Saf dina fa jàkkaarloo ak Njaak magicien mbokk yi lamb ji nag du daw ci benn tele en direct lay doon pay per view ngeen mun ko am ci seen affiche point com ah mu ni non promoteur laaj leen musuma delaw barki Seexuna Tijaani musuma delaw ma musulam guy gi bu la nuyu woon di ko non du ma ko fay lu tax du ma ko fay dañu am foofu rek lu tax non du ma ko fay du kay jut dara de dafa am lu tax après waaw am nga leneen lu dul lan. waaw. Eumeu Sène Junior nee na. waaw da nga koo daanoon. waaw mu daan. waaw nga teg le deux défaites. waaw moom mu jugee ci ay victoire. waaw da lay ñaan nga may ko revanche ngeen bëre yéen ñaar. non koo dóor di ko amal yéen. pour mooy revanche. dana am sama staff bu ñu d'accord maye revanche ma maye. Papa Cheikh ñoo des loolu mais beneen beneen bët buñ la maa ngi si mais ku a daan la non Forza bëriwu ma Forza bu la nuyoo doo ko fay non non du ma ko fay déedéet ah ñu Reug Reug duñu bëree duñu bëree pour àggali sama rakk la sama xarit la gëj na gis Moussa Ndoye Maliña bàyyi na bëri nee ah, la wax de. te waaw mais daa mel ne Papa Sow daal du ko sow. ma chance. waaw moo mag mooy sama mag ci lamb nañu ñu bëre moo tax. pourtant état bi ma gis ci yow ne xaw may sax chance de. non baal ma fo rek. jërëjëf. waaw ñu ngi lay bëggee Baye ñu ngi sant bu baax a baax xam nga tey sa diggante a caatu yara muy mu mu am bis bu rëy diggante ma Bulldozer ñëpp xam ne ndaanaan la ñu ne combat tay mu dee la ci moom lan nga koy wax waaw côté boobu moom sant yàlla bu baax a baax parce que caatu yaraax ku ko xam ne xam ne ndaanaan la Bulldozer ndaanaan la mais caatu yaraax da koo supérieur ci bépp côté te incha allah bu dimanche dinañ xam ni caatu yaraax da koo ci bépp côté loolu nga yaakaar allah ci kàttan Bulldozer ndaanaan la de ndaanaan la champion nañ ko ko mais ñun Caatu Yaraax dañ koo gëm te wóolu ko te xam nañ ni incha allah luñ ko yabee bu bis baa dina ko confirmer bu neexee yàlla. yow ci lan nga ne. waaw ñun ñoo ngi suñu entraînement rek comme ni ñu ko daan defee d'habitude di waajal di compétir comme ni mu waree quoi ñu ngi ci bu baax. kii nee na Boucar nee na Talfa du ko yónni ci mooy bëgg pare nga pour bëre ak Talfa wala déet. waa ñun ñoo fi pour mbër amul ku ñuy teggi amul ku ñuy invité. Talfa bu ñu làmb boolee rek. ñu mbër yëpp Talfa moo ne yow la bëgg a bëre. boole rek ñu bëre incha allah ci kàttanu yàlla. ah mu ngi ci làmb ji maa ngi ci làmb ji moo ngi mbapat maa ngi mbapat bu ñu làmb ñu bëri incha allah ci kàttanu yàlla. loolu dina garaaw de. bi. li si des bareetul li koy ñaanal mooy ndam te yaakaar naa ne amul adversaire boo xamante ni bu ñu teree nelaw la dimanche incha allah day dem confirmer rek ñëw nekkaat ci lancé góor ñëw. confirmer ci kaw Bulldozer Bulldozer ak ñi mu doon am du benn de. ñi mu doon am moo gën ñoo gën a danger la a dañuy nelaw ba bidanti waa Yaraax fan yëpp dañuy bidanti. Ah. waaw boo doon moytuloo caat ci Bulldozer lan lay moytu. amul dara lu ma koy ci moytuloo. amul dara amul dara lu ma ko ci moytuloo. nga ñëw dal si kawam jëlee sànni ko fële. kon caat yi ni muy kon daagal ñu ko bu doole fu ñu ko daa ko bëre. Bulldozer du ka. Bulldozer bu xeexee. su xeexee saa yi duma ko su bëree ñu daal. Ah, loolu de moom kon mooy làmb ji jeex. non lay di du combat. te dimanche ngeen xam dara. yow ci lan nga ne. waaw ñun ñoo ngi gaa yi ngi wax waaw gaa yi ñoo nan bàyyi noonu parce que si biir semaine bi combat bi dina taxaw. incha allah si biir jël wala da ngay jëlaat. sama morom combat jàng combat bu coow. bii passé grand contre petit nga échec. combat bu coow mooy taxaw. combat bu coow combat. combat boobu yow bëgg nga ko. bëgg naa waxtaan. te combat bu bari la su taxawee di yeewoo parce que mbër yi ëpp fi ñuy yeewoo yaakaar naa su ma jiwul la Guédiawaye wala Parcelles waaw mu ngi ci banlieue bi daal banlieue te combat coow la nag combat bu bari mbaa du tarki ndaay gay laal déggoo ma ci banlieue la daal ñoom ñoo <laughs> la <laughs> ñëw incha allah di ñaanal caat ndam ñaanu baax parce que soo ko xoolee ngeen war a xam ne yéen ñun benn lan benn bopp la ay frère lan lamb boolewuñu ñun deret deret moo ñu yëkkati ñun ñëpp ay mag rakk lan ay frère lan ay doomu tante doomu yaay ñun ñëpp ay mbokk lan du sport moo boole quoi ay dëkkandoo la ku lépp rafet na xool ñëpp nañ xool si ñun sport su boolewul war ta xaajale exemple ci football bii ñu jógee xool ñëpp juboo xam nga yaraat tey ñëpp doon benn mbër yëpp génnandoo champion yëpp a ngi fi nii ñi yëpp kuy tax ngemb rek yaa ngi fi jaajëf waaw di leen ñoo ngi ñaan lépp xool dimanche ñu demee noon stade yàlla may ñu ndam si barke alxuraanu bi. maa lay ziar Baye Kaaw daa mel ni ndam neex na de. ndam neexagul de. ah jóge ci ndam. jëlaat combat neexagul. ah oui neexagul gars yi. yaa ngi waajal la fay. waaw ñu ngi ah. bi jeexagul comme ni ma ko doon waxee rek. fekk saison bi jeexul moom du ñu bàyyi. Ah. bi la fay bi mooy sa ñaata combat. combat bi mooy doon mooy doon mooy doon. naan naa ne daal trois défaites laa am victoire yi moom. xam bi mooy sa ñaata combat ci saison bi. maanaam ci at ci saison bi. waaw quatrième. quatrième combat. waaw ci xale. te bu njëkk dañ daan wax naan xale yi mënuñoo am quatre combat ci ci ci at bi lan ngay wax sa morom yooyu. waaw affaire du lenn lu du liggéey rek. sérieux ci li nga def parce que promoteurs yi seen xaalis lañ yor mais tamit dañu xool ki nga xamante ne carrément moom lañ bëgg ku ñu bëgg tamit ak lu mu mënti demee ñun ay xale lañ dañuy liggéey. ñëwee waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy suñuy kilifa dañuy bëre parce que mooy li may wax rek man fii ak bu ma tàmbalee saison moom saison bi rek laay entraîné du ma toog benn fan bu dul dimanche. Ronaldinho xam nga ko. waaw xam naa ko. loo xam ci moom. mën a bëre. ak lan mën a bëre. ban tànk lay jiital. xaw ma ko sax mais mën na. mbot ak bëre ak jargandalu lan la ci gën a mën a. Ronaldinho laa lay wax Ronaldinho. man damaa bëri bañ tuddee ma Messi. Ronaldinho nga am. waaw man Messi lay day xaar day xaar. waaw ah, Messi lay dajal. gurne bi gurne bi da ngay dal. tey ñëw ci open press caatu yaraax. fekk fi waa yaraax gépp ñëw ànd moom Dalifor géeg yëpp mu mel ne dégg da ngeen def benn bopp ànd doon benn say mu jëm bis bu rëy lan nga koy yabee. Ah, parce que ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te fii lañ juddoo ñu ñëpp xamante bokk mbapat def lépp defandoo lépp caat borom baax la bu ñu xewlee day bàyyi léppam ñëw. kon yoon la mu jaa mu xew la ñu ñëw rawatina ñu ñëw fekk fi sunu grand muy Moussa Ndoye muy sunu lépp muy sunu idole di sunu lépp muy Moussa Ndoye di ko ñaanal jàmm caat dañ koy ñaanal mu am ndam parce que loolu dong moo ñu jig te dafa yor caabi bi fu mu toll nii mooy dafay ñu ñu ñëw dugg di ngeen la fi yaraax bu parcelle xewee nga ñëw Pikine xew la nga géejawaay xew la ko ñëw yaaw jàll lan la waaw gannaaw bu ma sante yàlla sant Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sant sëñ Abdou Karim Mbacké borom matam ak laa rawatina sama sëriñ Ablaye Wade di sant As Ndaw borom ndikku man awa gu yaar transport di sant ñoom Modou Fall ñoom Dame Diop borom Ndiarème Dalifort fii laa juddoo fa laa yaroo fa laa màggee nga juddoo Dalifort waaw diggante Dalifort ak Yaraax oh. benn la ñoo bokk yaam rek kii kàddu yaam rek xam dafa yàgg Eh, mbaxal ñoom mbaxal ak mbaxal ak commune montagne si sanc bi ak jàppo ak mbaxal ak Dalifort ak seen ak seen ak seen ñoo bokk ndey ak baay kon tey ñoom bu fi ay champion caat yi ak ñoom Moussa Ndoye am fi combat ñu woo ma seen impôt de presse damay ñëw tey daa mel ni tey booy Dalifort ak booy Kaaw taxaw nee ma ñaaw dama def dama war a def impôt de presse bii Dalifort kon ku ma ko jiitu ku ma ko dëgg masa yaa ngi man laa nekk mais tere na bu Dalifort xewle damay teew bu yaraax xewle damay teew mais à part Dérick Foro ak yaraax foo xam ma fay teg sama kon bu parcelle xewle ma wàññi kon parcelle bu soo faa. gis laa bokk. kon ma wàññi. waatal. ma wàññi géejewaay bi tamit. waaw mosoo maa gis géejewaay. man kay Pikine jeex na. wa salaam ndax daal Dérick Foro laa dëkk. yaraax ak Dérick Foro ay dëkkandoo waaw waaw pour awaaraw ndeysaan ndeysaan fa la mbir mi takkee pour are yaw jaal fa la mbir mi takkee mais sant yaa benn nag dama bëgg dina wax si booy yaraax di wax si booy dalifoor yi ndaxte booy dalifoor ak booy yaraax ay champion rek a fi nekk tey su ma amoon yaram man maay seen tëdd fil waaw bu fi état bi nekkoon kon maay seen tëdd fil digin tamit ma yaram dañu macha allah sama rek ñoom la am ak ñoom caat ak ñoom booy dalifoor kaagure ku si am combat boo ma gisee ndax ñoom laa am ndax démb la woon fii kon boog kon boog na gars yi doon jege waaw noonu la fa demee nag kon boog sant yàlla quoi wasalaam barke sëñ Bamba di leen nuyu di leen jaajëfal fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew di leen fàttali li ñu fi indi muy open press Caatu Yaraax Caatu Yaraax nekk xale boo xamante ne daanaan la ci làmb kenn du ko présenté ci làmb mu jëm ci bis bu rëy muy le 27 le 27 bi ñu jëm mu laal xale boo xamante ni daanaan la ci làmb muy du désert dafa lëndëm ku ko rey bis nag boo gis bis lay fay mbaa muy yëgal bis yegg si nañ ci bis bi carte yaraax a ngi nii def na open press di désert def na open press wax na dégg nga lépp lu mu wax ñu lay bàyyi nga nuyu mbokk internet yi su ko defee nga jublu ci waxtaan bi ay ca ñu dem caat ñu ngi lay nuyu waaw auzu billahi mina sheytaani rajim ginnaaw bañ sant yàlla di julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu wajur wàcc lu micro maanaam di sant ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci open press bi di dalal aussi site internet yi nga xam ne ñoo ma fekk fi yëpp di leen wax masa coono Baye Mor asalaamaaleykum wa rahmatulah Baye Mor Baye Mor Baye Mor la Baye Mor Baye Mor la Baye Mor la Baye Mor gis nga barki démb Bulldozer open press bi mu dem mu wax lu bare bare bare ci yow gëm na ni bu arbitre bi fépp foo nekk dina la fa fekk nee na say supporter nga mën a nax mais moom mënoo koo nax bu arbitre bi bu ne la yemal si nga yem foofu doo yem foofu de xanaa day sóob maanaam dafa bëgg ma tontu ko quoi. waaw dafa yàgg. tontu waat ko tey yaakaar naa ñu fi taxaw ñëpp jël nañu interview. waaw damaa tontu ba sonn. tontu waatal tey. dimanche laa koy tontu ci kàttanu yàlla. tontu. li ma koy tontu mooy fii lay yem Gérard fii. kenn mësu koo duma si làmb. man maa koy duma dama koy duma daan ko. loolu mënu koo bañ dama koy duma daan ko maa gën nekk xale. koo bu doole dama koy duma daan ko. koo bu doole. lépp man maa ko lu góor am lu nekk man maa ko ku daa ko bëre. lépp man maa ko ko daax. supporter. maa ëpp mobilisation moom. yéen xam ngeen ne caa la ñu naan. arène nationale nga jëm de. arène nationale nga jëm maa wax wax bu am solo. muy lan. mu ne ma bàyyi jiili ma ne ko naa def. mu ne ma damaa bëgg yaram. waaw mu génn ak yaram. nee na da lay njëkkee mos la laalaat keneen yaram mais bu dem du ci yow la ko def ci yaram. waaw moom gaal gi mu saroon dig na bu yàgg te maa ngi dégg. laa leen ko déggoo ma loolu leen set. man dama doon lambando tey laay soog a lamb le 27 ci kàttanu suñu borom incha allahu rabbi le 27 ma wane sama bopp. bulldozer moo dama ko tontu parce que tontu naa ko cinq cent mille fois ma ne ko léegi damaa gis mbëri ku daan damm siège ku ñu daan moo damm siège mu ne say supporters ñoo fas yéene damm man de ay supporters am man de benn man man man musuma ci lamb kenn musul wax sumay supporters mais moo dam man manam cinq cent musuma dagg ci xaalis man ñun no à l'avion la laay àndal maanaam fii Robert Thiat yoo xam ne ba leen seen teew fii nga xool gesu xam na fii ay kapoor ñoo fi taxaw. cinq secondes mënoon koo xaar. Thiat Yarakh bi yéen mënoon a xaar cinq secondes. wala da ngay cause combat mu yàgg. amateur yi dañoo namb laamu ju neex. yéen chaque jour ma daan ngeen ne gisu leen filmé wu leen. waa bi yoon xaar di ñu moytu mu xaw dama koy sàmm ci kàttanu suñu la laaj. taxaw bëri moom duma ko. ba mi temps. ka laa mi temps. kii ma koy jàpp duma ko bëri la ko mu xoox ma daan ko am mi tax jël ko bu arbitre prix moom xaar ngay indi bu arbitre moom day indi est que bu indee mën nga koo def est-ce que bu indee mën laa dégg maanaam bu indee nee na moom du la xaar day indi bu arbitre prix mu ngi sa kaw est-ce bu doxee sa kaw mën nga koo def waaw ah, loolu ay naxee mbay la rek bu dee indi moom ci mën lañ ko dàq mën lañ ko xamee ndax euh, stratégie lamb man dama koo xam muy mbër li ngay teg. waaw pour bu ëllëgee nga mën a nax sa borom mbër xam naa lépp nu mu demee. bu du bëri du xeex billaahi day raw jënd jël bu taxawee lamb ji du yàgg mais di taw borom 4 secondes yi. nee na moom dafa doole te gëm na ni moo la ëpp doole. li mu bëri naan Alésir. ma yóbbu ko Alésir. mën na ko de. moo gin bu yow da koo constaté à l'azur la ko de. bokkuñu man caatu yaraax nga waxal bil désir dama koy duma daan ko xaari man da xanaa déggoo ma kenn mësu koo ci làmb. kenn mënu kenn mësu koo ci làmb. waaw le 27 yaa ko dul adversaire ñoo bokkul rek. kin bokkul ah. cafin. parce que moom li mu foog li ma waxoon laay waxaat. loo waxoon mercenaire du ma romb loo ci géej. laskaas si ci kanam laay dabee. te bu fa gaalam ñëwee mu dig. waaw dina fa ñëw gaalam jëlee doxalal la. ndaw bu daar ndaw koy buddi. te su ma ko jàppee moom koy buddi par force. waaw loolu lébu yi ñoo xam. waaw. ndaw bu daar ndaw koy buddi. su ma nee ko tekkalee léegi. da ngeen a xam li ngay def ci stade. Ah. du ma maa leen koy jox am ci kàttanu yàlla may tàgg plateau. la ndaw bu daar ndaw xoy guddi di suuf laa wax yarul ko yore su ma kese la gëm sama bopp nekk ndaw di liggéey ci bëri gëm sama bopp kese li ci des moom dañuy ñaan yàlla parce que xam rek beneen côté bi ñuy wax muy ban ñëpp ci yàlla la suñu boobu dañuy wékku waaw yàlla noppi na mais ngëm-ngëm ci kàttanu suñu borom awaaw ah, Doudou Yaye mbokk yi Fallou Ndiaye ak waa Ndiaye production ñoo woote bésu le 27 février arène nationale Fallou boole ay xale yu ës mën a bëre teg ci mën a xeex lool. looloo tax ñu dem jële ji Jokal daal di koy boole ak Ada Fass de Jokal fera face à la jeunesse de adafas Fass. bulldozer caatu yaraax combat espoir waaye lamb ji nga xamante ne ni jaay na boppam bu yàgg diggante Laurent Ndiago ak Bou Siteu combat sénégalais. ci bés boobu Tony Junior dina fa jàkkaarloo ak Jackson numéro 2 Baba Jaxal dina fa jàkkaarloo ak Kelemaso Soq numéro 2 ak Bekaay ci bés boobu la ñuy bëre Sekk Ndaanaan armée 2 dinañu fa jàkkaarloo Papa Siteu ak Franc Mbeur dinañu fa jàkkaarloo Karbala armée Dieye foofu la ñuy bëree waaye Caatu Saf dina fa jàkkaarloo ak Njaak magicien mbokk yi lamb ji nag du daw ci benn télé en direct lay doon pay per view ngeen mun ko am ci seen affiche point com